manipulation mm-hmm. des masses. Mm-hmm. Et ça, ils l'ont réussi. Bon, relais. Lors des élections euh, euh, des maires, là, mm-hmm. avec législatives, disent nañu la manipulation biñ doon autour de l'homosexualité di dem si c'est si di de gëmloo ou même mi Macky Sall qui référendum bi mu pour que góor jigéen ñi am liberté légui di ak tout ça alors que bu amé ku doon défendre que ay ay ay goor jigéen yoy baña am ci réew mi damay jàpp Macky Sall dañ ko wara jox raaya. Mhm. parce que taxaway bi mu si taxaw. Mhm. diko bagn diko wax si les instances les plus élevées. Mhm. ak ay instances non officielles. fune wax na ko fu lu ne wax na devant les le le président euh, américain. mais yéen a ko financer yéen. wax ko. yene yéen a ko financer yene wa gouvernement bi xam tax ma ne a ko financer parce que ONG yi di wax ni comme ay Human Rights ak ay à la place de donner à Major Kandji des moyens mu dem waxtaan avec nos jeunes forces de défense et de sécurité un ancien ñëw toog ñu organiser ay séminaires wax leen lan mooy la tenue lan mooy la retenue parce que la tenue uniforme la mais la retenue c'est intérieur mm. moy am nga la nga xamante intérieurement métti na la nga mën ko té moy éviter xalé biñ jox na ko demal enregistrer ma mu foto ko dem mayé ko xam amon nañ fi ben policier ou je sais pas ba nga xamné ne na Ousmane Sonko information c'est vrai c'est pas vrai taxaw na wax ko mais yéen yene jël ces ONG là sont far yi ñi tok di wax yépp ña fay tok di ray sen bop di saga Macky Sall diko ko wax lu nekk sont payés par la mouvance présidentielle nañ waxante deug yéen leen di fay pour xam nga lan la pour def benn genre armée yakuza benn genre armée mexicaine ba nga xamante ne xaaral ma fay benn chroniqueur mu wax am doole bu subaa bu ma major Kandji waree attaqué ma yónni ko mu écrasé ko mais ñi nga xamante ne ñu ngi nekk fii Sénégal nekk des patriotes man je dis pas kii di defendre Macky Sall euh, APR ou Benno Bokk Yaakaar mais kii di defendre le Sénégal ki nga xam ne dafay toog di wax ak des jeunes ñu koy dégg. Nous, mérité nañ au moins affaire financement wala accompagnement pour que ñuy ñëw ci plateau yi di waxtaan ak sénégalais mais est-ce qu'ils l'ont font duñ ko à la place ils préfèrent faire TV man li may wax on paye des gens yi nga xamante des ministres et des directeurs dañu

utiliser nañ ko ñoom ba am gain de cause en mhm, mhm. benn moment c'est-à-dire mooy nañ ba ils ont gagné des mairies yu baré-baré faire nañ ba élection législative ñu activer loolu ba mhm. am manam la députation ñu témbo ak à l'Assemblée nationale c'est-à-dire loolu là wax te li nga ko amee lu c'est de la manipulation di wax loo xam ne nekkul nit ñi gëm leen loolu laay wax ne foofu c'est pas c'est pas normal mais malheureusement li nga wax nii su ne Vous avez très aussi c'est extrêmement que par exemple des gens voilà des ministres de la république ou des directeurs de la majorité présidentielle tant le président Macky Sall financent financer ses ses adversaires ennemis là parce que nous, nous sommes des ennemis de la ah, république donc nous nous les di financer avons possibilité de déstabiliser C'est extrêmement grave ça veut dire quoi moy li ma waxoon sànq avant que major ne vienne mm-hmm. dañu wara a sur les fondamentaux delluwaat ci defaraat jikko yi delluwaat ci xam nga wax ne dañu wara buñuy wax les assises de l'éducation les assises de nangam les assises de l'agriculture les assises les assises mais assises yi ñu wara def moy assises yo xamné yi pour la pour ñun sénégalais ñun lañu wara def càmbaraat ko waxtanat ko xolaat li xew parce que amna luy xew legui warul wona am amna situation yo xamné yow da ngay jaxlé tout te mais man ban dëkk la nek man je ne suis plus au Sénégal y a un problème ci rew mu nga xamné quand je dis que ne rew mi dañ koy gérer culturellement c'est par rapport ak lolu parce que dafa am ay ay fondamentaux yu fi nek yo xamné ay cëslaay yo xamné mo moo rew mi xam nga euh, am amna ñoo am peut-être ko xamné il est cartésien c'est-à-dire mom li muy yëpp yëpp daf koy tek sur la raison mm-hmm. mais ñun nous sommes façonnés ci benen anam nous sommes des musulmans ay religieux lañ am luñu gëm ma jàpp ne tey réew mi mm-hmm. li ko lolu bokk na ci manam nos chefs religieux le travail bi nga xamné Serigne Touba def nak le culte du travail mom la jangalé murit ci lolu lañuy la dox nga xol Seydi Hadji il a façonné ay nitam ci correction ci ci respect ci lek lu c'est-à-dire ñooñu dañu former askan wi bo ci euh, le clergé ñun dafa am ay fondamentaux actuellement nous ñu ko baye muy nasax mu xam nga discours yi ñu dégg les les ay nervis religieux

du tey bien sûr. du tey mais ñi koy def mais dama ñi koy def ñooñu ngeen. jël dëgg ñooñu ngeen jël. teg leen ci kaw dañu waxante dëgg ah. non quand je dis ñooñu ngeen jël parce que da fi toog en tant que da nga fi toog en tant que xaaral rek daf nga da nga fi toog en tant que euh, kii appartenance gouvernementale. donc ñun bu ñuy wax dañuy wax ak yow parce que politique nga léegi politique boobu nga doon noonu. xam nga politique defar jikko da cay jiitu yaa ko wax léegi mais tey jii imaginel Eh, nit saaga na bañ def ko directeur de surcroît directeur bu am doole tey jii ba mu demee ba dara desu lu dul affaire bi war naa jeex muy clignoté beneen côté mais dafa attaqué li fi nekk muy Souleymane Jules Diop léegi léegi non attends rek xam nga xam nga gis nga saagakat moom ah bii sol basin ak bii sol sous-vêtement yem saagakat saagakat la rek Mm-hmm. kat bi sol basin ak bi sol sous-vêtement sa kat bi dol 4 4 ak bi yor jakarta ñoo gis nga nit moom da ngay bax rek wala nga bon mm-hmm. mais tout ce qui se passe actuellement dans ce pays am ngeen ci responsabilité responsabilité bi ngeen ci am moy vous avez très tôt transhumé vous avez laissé le président Macky Sall très tôt depuis affaire yi tak bombe yi am dekk bi jaxasoo le gars yu beure beure beure commencé o gars yi ci souf nan len non gars yi kat ñom ñoo nangam nangam di jaay fofu la jaayante bi commencé mais 2011 bi 2012 bi président de Macky Sall di ñew li amu fi won affaire yaa ngi commencé en 2021 bi problème yi amé ci dëkk bi ngeen transhumé vous avez transhumé très tôt lool moo indi nag pëcc xoo bi ni am actuellement ci dëkk bi nañu waxante dëgg dëkk bi qui est qui actuellement qui fait quoi ku nekk jëm na fi mel ni di ut ko neexal pour en cas bu dëkk bi parce que ñu bari ñu ngi yaakaar ne dëkk bi dina yëngatuwaat man loolu laa fi gis ah, man dëkkuma fi mais bi ma fi ñëwee léegi li ma fi gis moom c'est extraordinaire moi je, comprends ton indignation et ta frustration par rapport à li nga xam ni c'est des constats yu nga xam ne peut être mën nañ ko nangu parce que nit aussi dëgg moom yàlla moo ko moom man moi ça dit quand je prends un exemple moi je ne peux pas parler pour les autres mm-hmm. je prends un exemple en tout cas en ce qui me concerne man depuis 2012 comme yow je suis un produit de la diaspora tu le sais manière au Sénégal avec avec le président Macky Sall